soo ko doxee wax ko mën naa am autorité yi nga xam ne ñooy décision yi ñu jël jël mesures yooyu application bi su ma jëlee exemple euh, la révision sur le viol et la pédophilie ku ne xamoon na ni avant muy nekk crime délit la woon mais jigéen ñi ñoom ñoo jóg ànd ak ay góor di dox di wax ba ñu jël loi boobu daal koy jëlee ci délit yóbbu ci crime je crois que def nañ ci ay formation yu bari fii au niveau du département de Koungheul loolu jigéen ñoo ko dox bu ñu toogoon seen bopp loolu du am xam na bu ma dugg ci biir loi bu teel ci biir lañ xam lan bu ma anticiper mais en tout ñu xam ne dañoo ñëw tey ñu xool lu bi ñuy wax article 111 et article 196 du code de la famille. ne xam na ne bu mu dund dafa am lu ko dënk mooy code de la code de la famille code de famille mooy maanaam texte xam ne day tëral. ñu wax nan lañu ñu toogee ci kër yi nan la ñu war toogee ci askan bi donc loolu mooy guddi la la famille donc xam naa sans plus tarder dama guddal dama la ubbi rek di ñaan yàlla lépp luñ fi wax mu nekk njëriñ te kenn ku ci nekk boo ñu jëlee dana bokk ci askan ba nga bokk boo ci kuréel ba nga bokk nga fexe ba ñooñu am information yi ñu jël voilà. ma jégalu. di nuyu imam di nuyu également la presse euh, comme ni ko Mbour waxee. tey euh, atelier bi day porté ci plaidoyer pour la révision du code de la famille mais mu concerné ci ñaari article du code de la famille bi yëpp mais ñaari article euh, muy article 111 ak 196 euh, buy wax essentiellement ci violence yi faites aux enfants ak de la femme donc révision bu ko déggee mooy loo xamante ni tënkoon neen ko ba pare mais ñu bis ne am na ay coppeeku yoo xam ne buñ ko ci defaree day gën a ñoŋal mbir mi donc loolu la ñu ñaan formation bi déroulé wu atelier bi déroulé wu si jàmm e que buñ demee aussi restitution bi démultiplication bi ñu ñu taxaw si de sorte que mu jaar yoon bu si nekk boo demee donc sensibilisation lay doon ak euh, li nekk fii sotti ko ci ñi ko seqal ñu la war donc ñu teewlu ko bu baax ba buñ demee buñ umpalee liñ fi doon waxtaanee donc loolu laa amoon dama ci di remercier aussi euh, ci di leen ci invitation bi di préciser ko aussi le maire moo fi bëggoon teewal boppam Alioune Badara ci pour conseil municipal de Koungheul mais dafa am ay empêchement à la dernière minute merci beaucoup. merci monsieur le maire. Euh, que ne jarul may présenté wu ñëpp xam daanaka dégg euh, ñëpp xam nañu ne fonction bi changé di wax ne nag tey ministère dañu dalaa la femme dañu koy teg pour jigéen ñi nag amul xàjji amul seen ñëpp laa fi nekkal te tàllal naa ma profité di leen wax ne nag tàllal naa ñëpp loxo mm-hmm. euh, pour ñu liggéey. ndax ñun jigéen lépp luñ sumb war nañ koo mën a motal di rafetlu bu baax te kenn yi nga xamante ne moom lañu indi mooy ñaari thème euh, mooy ñaari article yi nga si lañ war a waxtaanee pour révision bi tey buñ ne article 111 laal na jigéen ñi mais tamit laal na góor ñi ndax kenn du wax jigéen sans góor ndax buñ ne njaboot papa ak yaay looloo tey bu ñu gisee teewaay bi tey am na góor am na jigéen kon euh, ñu di ñaan rek ñu teewlu ci bu baax ndax lépp li nga xamante ne waxtaanee nañ ko fi ëllëg si biir buñ demee ba gis ko feneen wala ñu gis ko suñu njaboot ñu xam taxawaay buñ ciy am euh, te di ñaan lépp loo xamante ne ñu ngi koy waxtaanee fii di ko ci bëgg euh, yàlla dogal ñu am ko muy révision article bi ba ñu mën see am na ba ëllëg lépp luñ ci bëgg liggéey ñu liggéey sa am na solo mu nekk loo am solo loo xam ne ñu ngi ci daan yëngatu def ay activité de mais bii rek dañoo bëgg suñu génnee tey ñu gën koo lawal tey moo xam à travers les structures le jeunesse. Mm. ñu ngi ci mouvement nawetaan ci ASC yi. ñu waxtaan ak ñoom suñ mbootaay mbootaayu jigéen ñi ñetti caabi yi. imaam yi aussi ci jàkka yi ñu koy boolewaale ci football yi. ñi nga xam ne aussi ñoo nekk les délégués de quartier. à travers euh, seen koñ yi. ñu fay def de euh, di fay def ay tee ay wax euh, di ciy def ay waxtaan. pour mm. gën a sensibiliser tey ñi nga xam ne jotu na ñëw ci. lii nga xam ne tey moom leen doon def ndax ñëpp mënu na ñëw mais dañoo tànn rek comme ni ñu ko tànnee couche bu nekk ñu laal ko kon vraiment maa ngi ñaan daal neen gën a yokk démultiplication bi bàjjanu gox yaa ngi fi relais yaa ngi fi ñi nga xam ne ay personnes ressources leen ay notables ñoom it aussi ñu ngi leen di jaajëfal suñu demee ci penc yi ñu wasaare waat ko foofu nga xam ne góor ñu jotul woon ñëw ñoom it ñu mën cee jot di mën cee jot bu baax a baax ba nga xam ne ñëpp danañ ci jote incha allah di dalal seen di leen wax ne ñun incha allah département de Koungheul buñ ci des ginnaaw lépp loo xam ne tey activité la wala loo xam ne tey mën na jëmal mbir mi kanam ñun daneen ko porté te daneen ci taxaw bu baax a baax di jaajëfaale it ki nga xam ne mooy le premier magistrat de la ville de Koungheul mu monsieur le maire Alioune Badara Ly ak équipe municipale am ñu koy remercier bu baax a baax ci accompagne accompagnement bi nga xam ne def nañu ko bañ ko ko waxee yéen rek seen liggéey la les deux chefs de service moo ngoog dañ leen di ñaanal rek mm. waa ngeen gën di am jot di am wérit di ñu mën a gungee di remercier ki nga xam ne mooy porte d'entrée bi ñuy le préfet du département ndax moom it ku ñu yombalal activité bi comme sànq ni ma ko waxee ndax bañ ñëwee dafa gis importance bi nga xam ne lii am na ba ma waxee rek dafa mën a jugal ànd ak seen góor ngeen daal di déroulé activité kon moom it vraiment ñu ngi koy remercier bu baax a baax ak l'ensemble des présidents groupement jaarale ko ci ki nga xam ne moo yor présidente GPF présidente bàjjanu xale yi euh, bàjjanu gox yi mooy la présidente Khadijatou Ndiaye xaritu xale yi. la présidente du comité consultatif des femmes aussi représenté neen ko fi. Ndeye Fatou Dieng moo ko représenté dafa am empêchement de dernière minute. moo tax ñëw mais amoon na yéene lool pour ñëw pour teewe si lii ndax nee lépp lu jëm ci jigéen moom daf koo yitteel mais rek jaam ak bëggam yàlla ak dogal mën na am nii la ko yàlla dogalee kon moom i vraiment ñu ngi koy jaajëfal bu baax ndax dox na ci dox jéego yu am solo bañ ba ma demee waxtaan ak moom en tout cas daal di gërëm ñëpp. di sant ñëpp ak la presse locale bi nga xam ne ñoom ñoo ñu accompagné vraiment amul seen fay ñu bëgg rek affaire bi neen ko wasaare ba nga xam ne ñëpp daneen ci mën a jot à travers les réseaux ak euh, la rajo communautaire même monsieur bi nga xam ne moo nekk ci rajo communautaire soo ñu mënee accordé ay émission rajo radiophonique dana ci baax ñi nga xam ne ñu ngi ci yeneen gox ñu mën a am opportunité ñu waxtaan ñu mën a xam lan mooy importance su code code euh, cent onze euh, at cent quatre-vingt-seize bi dana ci am solo lool kon maa ngi lay sollicité di ñaan vraiment nga jàppale ñu may ñu ay émission radiophonique danañu arrangé lool kon di gërëm ñëpp di sant ñëpp vraiment merci ah, euh, tey lan ngeen kii mébét ci li nga xam ne mooy code yooyu nga xam ne ñu ko bëgg a suñu waaw mébét bi lenn la. dañ ñëwoon fii tey ci euh, dëkk bi waxtaan nag communautaire yi communautaire ci nekk nag am na ci organisation boo bàyyeekoo ah ñu ñëw fii ñu waxtaanee li nga xamante ni ñaari article yooyu loolu la wund maanaam li nekk ci biir article yi pour ñu xam ko dañ leen doon sensibiliser d'abord ci article ci li ñuy wax ci article pour ñu mën euh, wax leen ñun liñ ci mbëbën mooy def benn plaidoyer pour ci article ñaari article yoo xam ne c'est totalement discriminatoire cent onze bi day wax ci âge mariage hmm. âge mariage bi article cent onze bi dafa wax ne xale bu jigéen bi bu amee seize ans lu ëpp cinq ans mën nañ ko may xale bu góor bu amee lu ëpp dix huit ans war nañ ko mën a may léegi nag plaidoyer bi lenn la dañu bëgg ñu relever âge mariage boobu ba dix huit ans parce que loolu la convention internationale yi wax boo ñëwee ci article cent quatre vingt seize bi moom euh, day wax ci affaire paternité day interdire recherche de la paternité voilà mu nekk loo xam ne lu doy waar la am conséquence yoo xam ne doy waar la ci ñeex ci nit ki boobu tamit ñu ci def plaidoyer pour que rek tout simplement ñu supprimer ko wala ñu modifier ko. lan moo euh, gàllankoor yi ci am dafa bari ndax day tax xale bi xale bi judd noonu doo xam papam day am tamit impact ci état civil xale bi voilà day xañ tamit xale bi ay yenn ak ak yelleef yoo xamante ni. Euh, convention internationale yi état Sénégal xaatim te ko koo may. loolu mooy taxawaay yi nga xam ne ñoom musulman yi léegi ñoom ni ñu waxtaan ak ñoom yaakaar nañ am nañu yàqin ne dugg na ci seen nopp ndax loolu lañ fi wane rafetlu nañu waxtaan bi wax seen mbetteel parce que bari na ci ñoo xam ne xamuñu woon ni article bi te nekk na loo xam ne déjà ñu ngi ko doon dund parce que bari na expérience yoo xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ko nettali loo xam ne ñu ngi ko doon dund te liñ ko doon dund xamul nañu woon loolu moo nekkoon cëslaayu euh, ñaari article yooyu voilà léegi nag taxaw nañu ñoom neem tem ñoom it song soobu ci mbir mi pour dem waxanteeg seen gox yi fa ñu jógee wax leen li nga xamante ni loolu lañu fi jukkee waaw li ñuy tàggatoo nag lenn la mooy waxtaan nag nañ ñoom te ñoom it rafetlu nañu waxtaan bi di ci euh, di jaajëfal bu baax baax euh, action association action pour le développement du Sénégal mooy AAADS di ci euh, bi nga xamante ni madame Ndiaye mii moo ko dirigé moo leen fi représenté di tamit féliciter remercier aussi partenaire am bii di VLF bi nga xamante ni moo ci jàpp ba lii lépp mën a yem jaajëf